mbokku téléspectateur Equivox TV ginnaaw bi ñu leen nuyoo ñu ngi leen di dalal tey nag dama ñëw fii Yoff tongoor fekk fii benn famille boo xam ne rek seen i juróomi doom ñoom ñoo des fi nga xam ne moo di géej gi ginnaaw nag bañ jógee fi nga xam ne rek moo di quai de pêche ba waxtaan ak ña nekk ci direction ba daal di nañu jàll si fii nii ci famille bi waxtaan ak ñoom ngir rek ñu leeralal ñu ni mbir mi demee. maam laa ci ñoom ndax maak seen maam ñoo bokk mbir mi demee. waaw ni mbir mi demee mooy dañu fi jóge woon dem maare ji maare boo ko xamul mooy gaal goo xam dafa dem pour am ay fan maanaam ñeenti fan juróomi fan ba juróom-ñett am na sax yeneen gaal yuy am lu ko ëpp mais ñoom bi ñu jógee fii dem juróomi fan la ñu waroon am waaw pour dellu si bi ñu amee juróomi fan nag jàpp juróom-benn gisuñu leen. ah si la ñu door jóg ñun dem defi recherche pour xool leen si zone bi nga xam ne fa lañ doon géte ah bi defee recherche bi dem toute la journée ñu wër wër wër ba sonn gisuñu leen ñu wàññi ko waat waaw. boobu ak léegi ñaata fan la. Euh, boobu dem na un mois quelque parce que depuis le 26 février la woon waaw. léegi ngeen def seen recherche ba trouver li nga xam ne moo di gaal bi. Oh, waaw bi ñu continuer def recherche yi parce que dem nañ lu mat 4 jours. yoo xam ne bis bu ne dañuy mobiliser ñetti gaal wala ñeenti gaal pour dem def recherche bi ba ñu demee nag dernier jour bi si la ñu retrouvé gaal gi gaal gi nag bi ñu ko retrouvé mënuñu ko indi parce que fekk nañu mu am yàqu-yàqu aussi tam gaal yi demoon ay gaal yu ndaw la ñu woon attanuñu ko pour mën ko génne léegi ñu récupérer moteur bi bàyyi gaal gi foofu waaw ba fi ñu toog jotuñu si gaal gi waaw. teguñ leen gisuñu xale yi moom fekkuñu leen si gaal gi. Euh, est ce que ñi nga xam ne tamit ñoo yor euh, ñoo jiite li nga xam ne moo di quai de bi nekk foofu Ngor euh, yo est ce que jéem nañ leen jàppale tamit. waaw bi nga xamante ni mbir mi am na ki nga xam ne mooy papay xale yi moom dem na ci quai bi déclaré wu foofu xamal leen li xew waaw ah, bi ñu demee sa ëllëg sa gisuñu leen maanaam bi ñu leen ko waxee gisuñu leen sa ëllëg sa seen maam moo fa dem maanaam ngi ñuy toog moom dem na fa presque ci ñoom lu man ñetti yoon. di jaabante foofu xam nga rek jigéen bu jaaxlee boo dem na si ñoom moo ñoom lu man ñetti yoon mais amu ci benn satisfaction après nag si la ñëw toog delluwaatul si ñoom waaw ñun daal ñoo continuer defal suñu bopp suñu ay recherche ah ba bi ñuy trouvé gaal gi xam ni ah léegi amatuñu pexe ñu toog waaw. ñun balaa ñuy ñëw fii nii dem nañ fi nga xam ne moo di quai de ba fekk fa ki nga xam ne moo jiite kee ba mais lim xam le mooy bi problème bi amee saisir nañ ñi nga xam ne ñoo di marine ngir ñu ñëw jàpp ci. waaw. sisir nañu masi marine sisiruñu marine ñun xamuñu si dara parce que bu ñu ñëwee réclamer la wax la ñun kat suñu gaal dafa dem ah gisuñu la nga ñëw ni ah ñun kat dem nañ si marine gisuñ euh, dem nañ si marine cisir nañu machine ah marine donc duñu la gëmal loolu boo ko waxee duñ la gëmal parce que premier jour bi seen papa demee def déclaration bi ñu laaj ko ay kartu gaal ak yu demee noonu sa ëllëg sa rek waroon nañu réagir soit ñu ñëw taxaw suñu kanam xamal nañu kat ñun ñoo ngi def action tel tel mais gisuñu loolu ce deuxième jour ba seen maam ji moo dem si ñoom ñu wax ko ñu ni ko ñoo ngi si waaw fii déglu nu fekk deux heures lañ ko wax maire bi déglu leen ba cinq gisu leen mu delluwaat si ñoom ñu ni ko baax na ñoo ngi si sa ëllëg sa mu xëyaat dem ñu ni ko ñoom dañ dem réunion nekkuñu fi waaw maire bi jël na seen numéro sax woo leen jotu leen waaw kon kooku bu nee six heures nañu marine marine dem na peut-être ñoom seen mbirum bopp la mais ñun yëguñu ko yëguñu ko te informé wuñu wit ci loolu waxuñu ko nee ne rek dégg nañ ne xale yi dañoo ñàkk seen bakkan ñoom def nañ ay jéego ñëw ba fii jaale si. waaw def nañ jéego ñëw fii ñun sax gisuñu bu dee kee bi bu dee waa kee bi parce que ki fi ñëw maire yi la fi ñëw turu maire la fi ñëwee waaw turu maire la fi ñëwee mais boo bëggee dégg dëgg ñun soxlawuñu woon loolu parce que ñun souhaité woon loolu maanaam di ñëw di saraxal nga ñëw di ñëw di jaala si wala di wu masawu déedéet li ñu souhaité li ñu soxla woon si ñoom mooy bi ñu nekkee ci. situation bi di dem di def seen ay recherche ay recherche ñoom ñu ñëw taxaw suñu kanam parce que aussi lu mën a xew gaal képp koo xam ne teer nga fii dugg ci quai bi jaay fi jën di nga fiy dagg ticket téeméer wala deux cent cinquante kon war na am retour bu fekkee ni mool mi dafa am problème ñoom au moins ñu dajale ci li ñu yor lu mu néew néew donte cinq mille francs la ñëw taxaw ne ñun kat waa quai bi ñoo leen ko dimbalee ci essence bi ngeen di jënd mais gisuñu ko ma suñuy tëmbal gaal ba kenn si ñoom ñëw taxaw fi masu gaal gi masul dem ba dellu si kenn ñëw taxaw fi waaw ah, bi ñu fiy ñëw daal di fi ñëw ki fi ñëw comme Jabel danaa ko cité parce que moo fi ñëw moom lañu gis mu ànd ak délégation maire bi ñaari nit la xaw ma ñetti nit indi fi saako ceeb yaakaar naa ak cinquante mille waaw ah, ci li ma li ma dégg. waaw ci turu bi la ñëwee mais du kaawu CLPA bi moo fi ñëw déedéet. kan kan ñaata ñaata nit lañ ak nan lañ la ñu woon capitaine bi mu ngi tuddoon Major Fall ak beneen rakam bu mu bokkal ndey ak bàyyi ku ñuy wax Ñambe Fall. ak seen benn rakk seen doomu ndey ku ñuy wax Jeylaani Diop ak seen benn jarbaatu papa ku ñuy wax Fallou ak seen benn moolu toolaan ba tey si maam même femme bi la rek parce que ñoo bokk maam keneen ki mu tudd Baye Diouf waaw. ñu ñu gis na yow euh, ci quai de ba mool nga fa yan problème ngeen di jànkonteel foofu. bon ci quai de bi man de wax dëgg yàlla aw ma accès si quai de bi barew ma fa tànk aussi. bara ma fa tànk lii am comme problème daal mooy lu demee nii peut-être ñun mool yi si lañ leen di xaare su lu demee nii amee ah ñuy ñëw taxaw suñu kanam ah dox suñu digganteek ak autorité yi dem ñëw indi ay résultats maanaam dem ci autorité yi wax ni ah def nañ lii def nañ lii jéego bii pour jokkoo nañoo marine wala marine jóg na mais bu dee dëgg wax dëgg ñoom defuñu jéego boobu suñ ko waxee ñun gisuñu ko parce que seen maam jii toog jaabante na si ñoom ñetti yoon ba ñeent ñeenteel ba dafa ñëw ñun leen ñoom dañ dem réunion nekkuñu fi moo jël portaabalam woo leen ba sonn jotu leen waaw kon bu ñu ñëwee boo ñëwee toog si ñoom ñu xamale ni ñoom si yoroon nañu marine mu dem ñun yëguñu ko. seen maam la maa jur seen yaay. mën mi mbir bi ni mu demee dañu tëmboon maare maare bi nag dana am ñeenti fan bu naa mujjee ñu dem ba juróomi fan ñu teer léegi ñu leen xaar ñeenti fan juróom fan yi ñëwuñu. ci suusuur ba juróom-benn far ñu kaali papaam sol essence bu doy ànd ak ay mbokkam ngi dëkkaale ñaari gaal dim mun demee ñaari gaal yi mun demee mool yi fanaan nañu di leen seet ba bët set ak seen benn jaay di leen seet ba bët set gisuñu ko sa ëllëg sa ñu xëyaat quatre heures dem tëmb di leen seet di leen seet di leen seet ba fanaan ci géej gis ñu leen léegi ma ni léegi daal li am ba des léegi bàyyi si ma ñu ma bàyyi Seydi dem sa quai de pêche bi seen pap ba mu fa demee wax leen ni leen waaw seen papa dem sa quai de bi ba mu fa demee léegi ñu laajte carte gaal gi ak numéro gaal gi mu jox leen ko ñun ñun ko léegi marine moo fi léegi ndax xale yi seen na ba am na xëy na dund génn zone bi marine bi ak hélicoptère mu wax sa ñu ni waaw téye kàttu gaal yi ak ñu patt toog après mu ñëw seen papa ñu ko bopp yi tëj na ana marine bi jóg na ma man day dan ma laajoon kàttu gaal jox naa waaye jóg ma leen xaar xëy na man mee mag ma demee leen wax ak man ma dem fekk leen fa ma dem fekk leen fa ki ñu wax Jabel Mbegeri ni ma ni ma marine bi dina jóg léegi ay boobu trois heures man ko jaba gaaw leen lu jot jot na xool te xale te am na nañu tey ji sept jours lu jot jot na mun na bu soobee am yaay dama toog rek ma toog dégguma marine bi fu mu jógee dégguma dara dara ma xam ne bu bi jógoon dina am résistance ñu wax nu ko ma xam ne kon marine bi jógul àjjuma di seen huit jours ma delluwaat fa ñun ma fii moom da ma ma dañ dem réunion booru port man leen li jox leen ma numéro am ñun ma xëy na bu dee bu dee foofu naa am occasion dugg si port bi waxante kii bi pour marine bi jóg jox ma seen numéro jox ma ko sa keeba ma oote oote oote oote ba sonn jotuma leen mu ñëw toogaat ak sama naqar ak sama bubbu tëju ma toogaat si naaju tàngaw ma toogaat ba une ma demaat kee ma ñun ma ñëwagum te doon yendu sa siiri ñëw ay buuru cinq heures mu wotewaat jabel wuyu ma ma ne ko jabel yow yéen yéen yéen ngeen seetaan de lu jot jot na de mun ma ñoom laa waxanteel nii man nga jabel waxanteel ak ñoom jabel boo doon waxanteel ñoom kon daan gis lii boog ni lii euh, jóg na wala ngeen ooni jóg na wala ngeen na kenn ñëw ànd si bi ànd si kii bi ñu xam ni ñu wan zone bi ñu nekk waaw léegi ñu ànd si kii bi ñu wan zone bi ñu nekk waaye loolu yëpp dara am da kii dara am yéen a ngi seetaan de te kii bii euh, euh, te euh, quai de bii mool moo tax mu nekk fi ndax da dañ fee jël co fi noo jëlee coopérative fi noo jëlee carte gaal fii noo fayee gaal gu teer ñu daggal ko juuti ni la ngay fay te fi mu nii. bu jë kii amu leen benn njariñ li metti na de mun ma yaay man li ma wax def ma ne que dafa jot pour ñu def ka nu ñëw toog xale yi tëmbalaat gaal ñu tëmbal ñeenti gaal gaal yi bu su ne war na def lu ma 200 essence xoolal ndax mbokk yi ak dëkkaale yi ak moroom yi ñoo cotisé ñu dañu gën di kat di yalwaan nga xam ne baat yalwaan ba man njëgu essence kii bi seetaan na gouvernement bi seetaan de. donc essence bi ngeen doon wëree xale yi ñoom joxe wuñ ko. joxe wuñu ko de fekk ba mu ko wooyee mun ma maa ngi nii man ne ko yow mun ma léegi xaar ko lii ma dem sa mairie ba ñu joxe essence man ko loolu yëpp xale yi dem noonu ba ñëw fanaanoon ñaari fan léegi noonu marine bi jóg moom laa la wax ba fi ma waxante yow nii jógu fi taxaw ni massa gaali teernu gaali fanaan ñaari fan di leen wër ñu mujj di yalwaan ñàpp seen baat di yalwaan ndax ba sa papaam ak ay mbokkam jeexal noonu tàkk. xale yi jóg dee yalwaan di kat ba am ñu ko essence daal dem tëmbal quatre heures dem fanaan ñaari fan ba fi ma waxante yow nii marine jógul hélicoptère jógul kenn jóg te bis ne defe na ko déclaré ba fi ma waxante yow nii kenn jógul kenn taxawul gaal gi ni massa wala dara loolu lan moo ko gën a métti sa àddina lan moo ko gën a métti sa àddina. Euh, ban seede nga mën a def ci xale yi nga xam ne ñoom ñoo wàññi. xale yi xale yi. boo seet sax ni doo kii jàmbur si mbedd ñoo gën nangu sa jur xale yi jàmbur si mbedd moo gën nangu jur xale yi ndax xale yoo xam ne dugguñu si dara defuñu si dara loolu liggéey rek seen waajur kenn mos gis leen si problème kenn mos ni coow am na ban dugg sa taluñu ko sax ñu ngi dem jàmbaar liggéey seen waajur rek duñ sigi xool nit di xale yu jàmbaar xale yu yaru xale yu nangu liggéey ñu nangu daan seen doole. xale yu baax amul benn problème. ban message ngay lancé ki nga xam ne moom mooy Abdoulaye Diouf Sarr nekk maire bu Yoff. Abdoulaye Diouf Sarr Abdoulaye Diouf Sarr joro war jokkonteeg moom wax naa wax naa leen ko wax naa la nii la dem sa Abdoulaye Diouf Sarr mu kii Abdoulaye Diouf Sarr nag état kii maire bi fii la fi nekkal waaye mooy si boppam leen tegul fen moom si ma tegu fenn te même essence sax mun ko jëndee buñ fay ko matu sax dañ la kaa dagg te mool yi amuñu benn benn benn amuñu benn njariñ mool yi amul benn njariñ mool mool yi dem dina dem di wuti jën du ñu am jën ñu dem ba dem zone bu nu moom sax dafa wuti jën ndax bato yi ñu jaay si géej te boo kii boo boo yéexee wala boo sàggaree bato dal sa kaw këpp walla wala mu rey la loolu mooy seen métier ak mool yi waaye amu leen benn njariñ booy daal samay magans ak sama rakk ju ma bokk ndey ak baay ak samay mag ñoo xam ne ñaar ñaari yaay quoi ñoo bokk. mbir mi daal yéeme na waaye yéem na moom yéeme na trop ndax boo bëlee ñu ngi toog du dund yaakaar naan yàlla baax na rek boo bëlee gisuñu gaal gisuloo dara mbasin daal leen gis moom te gaal yee ko for ndax boobu ba léegi nii moom affaire dafa dis trop si ñun nangootuñu lekk nangootuñu naan. cinq personnes ba léegi ne gisoo ci kenn te ñoo xam ne yéen a daan tëddandoo te yéen a daan jugandoo di xàccandoo di dóor kon tey fi tey jii bu ñu demee nii ba jaaxle nii kon affaire dafa di yéem torop ngir yàlla tax affaire moom yéem noonu torop moom te ñu ni ñaan moom président moom mu jàppale na si lii moom mu jàppale na si lii moom. ñi nga xam ba léegi nii moom wóor na yàlla moom bàyyeegunu moom. na ñun ñuy wax ak yow nii rek ñu fanaan nañ si ji ñaari fan di wër wër na yàlla te li ñu yëpp si essence noonu yëpp lu tolloo cinq gaal fanaan jiit jiit bu si nekk ñaari fan te bu si nekk li nga yëpp si essence rek ëpp na quatre cent mille barki yàlla. ndax boo li quatre cent mille yooyu ñun ñoo gën a cotiser rek sunu biir ngir jàppale ko ndax sunuy rakka sunuy mag bu ndee ba toll fii nii kon ñun war nañ jukka tax takk sunuy ndigg dem xoole affaire nu mu fa demee. waaye ñu noonu bi demee ba léegi nii moom mooy loolu moom wax dëgg fa yàlla moom kenn dematul géej kenn liiwatul ñu ngi nii toog suñu toogaay guddee bëccëg nag maire bi rek lañ yéen yaakaar fan yi moom na sunu maam la ndax moom moom moom leen yaakaar ma su dund gi moom wax dëgg fa yàlla moom nangoo mënatu naa joxe dépense nag kenn yoratul dara moom mooy xëy suba kenn xamul fan la kaa tibbijee ñëw tàññu si ngir yàlla tax kon moom moom ñu ngi koy ñaanal moom tam ñu ngi ñaan ma état moom mu jàppale nu si lii moom ngir yàlla tax